yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàng mi ak benn yàlla jox na musa nataalu mbaaru màggalukaay bi nanu bamtu nettali yi weesu benn lu tax ñu dàq Adama ak Awa ci toolu àjjana ndax seen bakkaar ak seen ñàkk ngëm yàlla ñaar lu tax yàlla àtte ñi ci jamonoy noyin ci am mbënn ndax seen bakkaar ak seen ñàkk ngëm ñett lu tax yàlla sànq sodom ak gomor ndax seen bakkaar ak seen ñàkk ngëm ñeent lan mooy bakkaar bakar mooy bañ a def li yàlla bëgg juróom lu tax yàlla wàccee fukki ndigal yi yàlla wàccee na fukki ndigal yi ngir won nit ñi li mu bëgg ci ñoom ndigal yi dañuy wone itam ne mënuñu def lépp li yàlla bëgg ndigali yàlla yi ñoo ñuy wone ne bàkkaarkat lañu juróom benn lu tax nit ñiy bàkkaar liy indi bàkkaar mooy ngëm gu matul dañuy bàkkaar ndax dëgër bopp ak ñàkk juróom ñaar naka la bàkkaar mel ci yàlla yàlla bëggul bàkkaar te dafay àtte bàkkaar mbind mu sell mi nee na ci gàddaay saar ñaar fukk juróom aaya benn aaya ñaar aaya juróom ak aaya juróom-ñeent bi ne Musa waxal waa Israyil ñu dajaleel ma ab ndimbal te nañu ko joxe ci xol bu sedd nama ma waa Israyil sampal mbaaru màggalukaay ngir ma mën a nekk ci seen biir na ngeen defaree mbaaru màggalukaay mi ni ma la ko sante boole ca yëf yu sell yi ci nekk itam bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla jox na musa nataalu mbaaru màggalukaay bi nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla joxe musa nataalu mbaaru màggalukaay bi musa yéegaat ci kaw tund wi yàlla wax musa mu bind fukki ndigal yi ci yeneen ñaari àlluwa xam ngeen ne Musaa tojoon na ñaari àlluwa yu jëkk ya yàlla sant itam Musaa mu samp ab mbaaru màggalukaay yàlla fasoon na yéene dëkk ci mbaar mi ci biir waa Israyil tegtal yii la yàlla jox Musaa ngir mu defe ko mbaaru màggalukaay bi dañuy jëkk def ab sàkket mu wër mbaaru màggalukaay bi benn bunt rek lay am sàkket wi bant lay doon ak ay ndimo ci biir ci wetu bunt bi dina am ab saraxukaay bu ñuy defee sarax yépp ci wetu saraxukaay bi dina am benn mbalka ndox ngir sëriñ yi mën a raxas seeni loxo ak seeni tànk dinañu samp mbaaru màggalukaay bi ci gannaaw mbalka mi mbaaru màggalukaay bi bant der ak wiir lañ koy defare mbaaru màggalkaay bi dina am ñaari néeg ab rido bu diis xajale leen ci néeg bu jëkk bi taabal moo fay nekk fukki mburu ak ñaar tege ci kaw ñuy màndargaal fukki këru israel yi ak ñaar dina fa am itam benn saraxukaay bu ndaw bu ñuy taal cuuraay lu dul fey dina am juróom-ñaari làmp diw te yooyu làmp rek ñoo war a tàkk ci néeg bi néeg ba ca des ca gannaaw rido bi fa yàlla di dëkk ak ñoom mooy néeg ba ñu tuddee bërëb bu sell baa sell dina am ci biir néeg boobu benn boyet gaalu kóllëre gi la tudd yàlla wax musaa mu dugal ñaari alluwa ndigal yi ci biir gaal gi ñu dugal it yetu aarona ak tuuti ci man mi ñu lekkoon ci manding ci gaal gi kubéeru wurus moo doon ub gaal gi ñu ngi ko tuddee woon toogu jégalukaay bi dinañu teg ci kaw gaal gi ñaari nataalu mbindeef yu ñuy wax seruben diggante laafu ñaari seruben yi dafa doon tàkk di wane ne xelum yàlla mu ngi ci néeg bi at mu nekk waa Israël daan nañu tub benn yoon seeni bàkkaar ngir réew mi yépp sëriñ bu mag bi mooy saraxe mala mu amul sikk ngir ñu jégal ko ay bàkkaaram ak yu nit ñi ñëpp ganaaw loolu sëriñ bi dina dugg ci biir bërëb bu sell baa sel ba tuur deret ci kaw jégalukaay ba loolu dina won yàlla ne nit ñi xam nañu ne bàkkaarkat lañu te tuub nañu seeni bàkkaar sarax boobu ab jégalu la woon ngir seeni bàkkaar kenn warula dugg ci bërëb bu sell baa sel ba ku sëriñ bu mag bi yàlla wax musaa ne war nañu fal aarona ak i doomam yu góor ñu nekk sëriñ yi su nit ñi indee seeni sarax sëriñ yi ñoo leen di jébbal yàlla nit ñi mënuñu taxaw ci kanamu yàlla war nañu am ab ràmmukat bu sel seen diggante ak yàlla waaye bala sëriñ yi di saraxeel nit ñi war nañu jëkk saraxeel seen bopp képp ku dugg ci bërëb bu sel baa sell ba te ànduloo ak deretu saraxe bi di nga dee ci saasa sëriñ bu mag bi rekk moo mën a dugg ci bërëb bu sel baa sell ba benn yoon at mu nekk askanu lewi mi doon kenn ci doomi ba yi ñoo doon liggéey ci biir mbaaru màggalukaay bi aarona moo doon sëriñ bu mag bi ay doomam yu góor doon sëriñ yu ndaw yi waa israyil waroon nañu def itam yeneen sarax sarax yi waruñu woon dakk suba su nekk ak ngoon gu nekk sëriñ yi dañuy saraxee ngir bàkkaari waa Israël nit itam dañuy jox sëriñ yi ay mala ngir ñu saraxel leen ngir seeni bàkkaar sarax yooyu di wane ne nangu nañu ne bàkkaarkat lañu waaye benn bës dina am beneen sarax bii dëgg te amul bàkkaar buy wutu sarax yooyu ngir seeni bàkkaar bu kenn bàkkaare te xamu ko mu ngi ci bàkkaar waaye bu xamee ne bàkkaar na war na saraxe waa Israyil matoon nañu ñaari tam deret ak genn wàll kon bés bu nekk daan nañu saraxe sarax yu bare ci mbaaru màggalukaay bi musa samp mbaaru màggalukaay bi ni ko ko yàlla sante musa xamoon na ne yàlla du nangu mbaaru màggalukaay bi suñu ko sampul ni mu ko santaane mbaaru màggalukaay bi ñu ngi ko samp ci diiru at waaye nit ñu bare doon nañu dégg dil yàlla doomi aareno yi sax mooy nañu yàlla ci seen liggéey ci mbaaru màggalukaay bi te ay sëriñ lañu woon yàlla wàccee safara ci seen kaw ñoom ñépp lakk ba dee fii la nettali bi yem am na ay laaj benn ndigali yàlla yi lan lañuy jëriñ jëriñ ndigali yàlla yi dinañ tox nit ñi xam ne bàkkaar nañu ñaar ndax yàlla soxla na kër ngir dëkk ci déedéet yàlla am xel la du mbindeef ñett lu tax yàlla sant waa Israyil ñu samp mbaaru màggalukaay bi yàlla bëggoon na nit ñi xam ne sorewul leen yàlla xamoon na ne nit ñi mënuñu topp fukki ndigalam yi te duñu moy moo tax yàlla jox leen mbaaru màggalukaay bi fu ñu koy jaamoo ngir mu baal leen seeni bàkkaar ñent ndax bu nit saraxee am mala dina fay bàkkaaram yépp ba mu mat déedéet deewuk bàkkaarkat bi mooy fay bàkkaaram deretu mala dafay fayindi bàkkaar yi ba kera payoor gu mat gi ñëw juróom lan lay wone dafay wone ne nit ki xam na ne bàkkaarkat la te yelloo na dee juróom benn lu tax mala yi ñuy saraxe waruñu am benn sikk ndaxte saraxe boobu misaal la ci sarax bi amul bàkkaar bi fay bàkkaar ci lu wér yàlla santaane na mala mu amul sikk ngir wone ne yàlla du nangu lu dul lu mat lu amul bàkkaar juróom ndax waa Israël mënoon nañu reyal seen bopp seen sarax déedéet waroon nañu yóbbu seen sarax ci mbaaru màggalukaay bi ab sëriñ reyal leen ko nit ñi mënuñu woon jege yàlla soxla woon nañu ku dox seen diggante ak yàlla juróom-ñett kan moo mën a dugg ci bërëb bu sel baa sell ba ngir tuur deret ci kaw jégalukaay bi sëriñ bu mag bi rek moom mënoon a jaar ci rëdd bi dugg ci bërëb bu sel baa sell ba te loolu benn yoon rek la doon am at mu nekk juróom-ñeent lan la sëriñ bu mag bi di def ci bërëb bu sell baa sell ba dafay wis deretu mala mu amul sikk ca kaw jégalukaay bi fukk lan la deret bi ñu wis ci jégalukaay bi di wone dafay wone ne nit ñi xam nañu ne bàkkaarkat lañu te tuub nañu deret bi dafay sàng seeni bàkkaar diirub at fukk ak benn lan la yàlla daan def bu sëriñ bu mag bi wisaan deret ci déggalukaay bi yàlla daan na baal waa Israël seeni bakaar yi ñu defoon ci at moomu su ko defee yàlla du daan nit ñi ba kara sarax bu mat bi ñëw fukk ak ñaar ci sa xalaat lu tax mbaaru màggalukaay bi amoon benn bunt rek yàlla joxe na benn yoon rek muy bunt bi ngir ñu baal leen seeni bàkkaar yan melokaani yàlla lañu gis ci nettal bi ak naka lañu ciy feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla bëggoon na nekk ak ay nitam te sàmm leen moom ci boppam yàlla bëggoon na waa Israël te bëggoon na ñu xam moom mooy kan yàlla may na nit ñi yoon wu ñu jéggaloo seeni bàkkaar yàlla dafa jub yàlla wàccee na fukki ndigal yi ngir nit ñi xam lan lay xaar ci ñoom yàlla wax na nit ñi lan lañ war a def ngir jéggalu seeni bàkkaar yàlla bëggul bàkkaar su nit ki bàkkaaree yàlla sant na ko mu saraxe ngir bàkkaaram bi ko sëriñ yi dégg dilee yàlla wàccee na safara ci seen kaw ngir rey leen beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla tànnee yosuwe ngir mu yóbbu waa Israël ci réew mi mu leen dik